Ah, Adi la médaille Adi la nga doon daw nga ne ba gañ médaille bii. le 4x4 400 mètres laa doon daw régionaux. is gore ñoo jël deuxième place bi ah, ñu si sant saa yu rombee ngeen jox ñu café Fall di ñu bëggee di ñuy ñaanal. Ah, yow sunu œuvre nga. waaw médaille nii nag moo tax bu ñëwee ak ak ñu mu munti mel dañ leen koy indil wal ko. ndax da ngeen si da ngeen ko war a sol. da ngeen ko war a xool. da ngeen si sol yàlla si jamono or topp. waaw amiin amiin te mu jëg ñu dañu fekkee lépp tal ko. kontaan na si loolu barke borom Touba waaw barkeelu café barkeelu si waaw bonne continuation dañ lay ñaanal rek nga sant bu baax ndaw baare TV Café Média aadi athlète waaw muy leer baara muy leer ndaw baara <laughs> di lay bëggee de faale ñu Usain Bolt de waaw ñu ko tàmmal de Fall faale ñu Bolt la wax ñun yow nañ gëm yaa ñu ko tàmmal Fall représenté Sénégal fépp van a tops.